Sénéguinja, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Séné by pour l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Laza, la Sénégalaise de l'automobile, votre concessionnaire représentant de grandes marques au Sénégal depuis 40 ans. Autorent, la référence qualité dans la location de voitures au Sénégal. Yup, c'est le porte-monnaie électronique qui rassure. Yup, ton wallet 100% simple et sécurisé. Avec Sono Assurance, n'attendez pas quand malheur arrive. Assurez vous biens et protégez votre famille. La famille de Warga Mamjara s'agrandit avec le thé jasmine. Mamjara amne super, silver, gold et jasmine. Jabba.sn, votre boutique en ligne pour profiter des milieux de films et séries TV sur votre Smart TV. Novotel Dal de dama ne télé bi ngeen doon xaar tàkk na dee Leral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te télé bi fépp la yegg ci Sénégal dee décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33 tomate Podor foo ko woo la lii ci tomate Podor tomate Podor gën ci suñu wàññ Lif Énergie nous innovons vous économisez Régisen vous offre la visibilité Uniparco Cosmétique vivez votre beauté exprimez votre différence savon pâte, savon poudre, savon dur, la main, l'hygiène et la propreté au quotidien. Complexe Sophia, l'univers de la beauté, l'expérience fait la différence. Surfez, choisissez et achetez à des prix imbattables tous vos produits de beauté et make-up sur sunushopping.com. sunushopping.com, le meilleur site de beauté pour tous vos achats tout en finesse. sunushopping.com, le plaisir du shopping en un seul clic. Les roses d'Antoine, plus que des mots, les fleurs. La nacelle, la beauté et le bien-être au naturel. 77 709 26 27. Avec des cadeaux offrez autrement. Négora Music Group, leader dans la production musicale. Rendez-vous sur comtrip.sn. Réservez vos logements de luxe et de qualité en un temps record. Trouvez vos appartements ou villas avec jacuzzi, piscine et peut-être même une plage privée. Au Royal, vous Nayel, des cadeaux d'ici et d'ailleurs. Kids Palace, maîtresse d'un homme marié, remercie ses partenaires. Amosa Accessoires, Ngorbachev, Chef, Betia Collection, Ebeno Couture, Boubacar Touré. gis nga ko na la na xool nga ko loo gis li mu sol wala ni mu mel wala li ko sonnal yow moom nga jigéen boo gis

bıgımım late up Mınağım bıgı bıgımım late up man xam naa ni tooñ naa la ba ci kanamu yàlla waaye doo mës comprendre

waaye boo xoolee man ak yow ci diggante bi li fi jaar yépp xëy na sama jëfin waru la jaaxal waru la bett. tey jii man ragaluma sax loru waaye sama njaboot ci boppam moo ma jaaxal. Marème bu dee da bëgg ma toroxlu mën naa ko def boo bëggee ma raamal la mën naa ko def soo bëggee ma humilier sama bopp. yow loo bëgg mën naa ko def parce que tey jii nii xam naa ne wasaare ay awra jàmbur ci réseaux sociaux yi baaxul ma dem seet ci bébé ma koddu ak Noura amarem seet ci xale yi man xam naa ni yow bonoo dimbali ma rek jàll len rek la am luma lay ñaan retirel plainte bi dimbalé ma retirer plainte bi ngir yalla ak yonent bi ma ngi la koy saraxu ça va Tu as l'air perturbé. Il s'est passé quelque chose Tu sais, tu peux me parler, hein Je peux tout entendre. Je suis là. Une personne qui a détruit ma vie est venue jusqu'ici pour me demander pardon. Mais c'est trop simple. Je peux pas la pardonner. laisse tomber. Oublie tout ça. Mama na ci sa wet mbëggal nekk lii ma yëg lii rekk neex bés bu ne ma gis na nga ne sama wet mbëggal nekk lii nga Baby, tu sais, je te love. T'es la seule que je flow. Tu me rends high and low. And low. You give it to me all night long. All night long. You give it to me all night long. All night long. I'm on my way. bus Boulet. Hey, suis

fii am nañ droit def lu ñu neex. écoute t'as pas le droit de nous interdire quoi que ce soit on est chez notre mère. yéen daal ah seen kër ndey la moo tax aw ma droit wax ak yéen li ma bokk ak seen baay da ngeen ko mën a dindi yéen man di su ma ko defoon sama bàjjen man ngeen dégg jarbaat ci ki faatu indi leen di. indi xaalis indi ak indi yow yéen téléphone. Jang, Wati, ñëpp midi midi 5, fekk leen ci kër gi ngeen di jaay woy di jaay xale am fit. on va reprendre notre téléphone quand maman sera là et refaire de nouvelles vidéos. ba maman ñu fekk c'est pas toi qui les as achetés. à genoux ay waay ci lu leen am jàppal sa nopp nu mu gën a gaawee ni yéen nee lañ leen di bàyyi risqué loo leen am ngeen ngeen gërëmoo nit fu leen doogoo leen wow quoi mais attends attends attends qu'est-ce qui se passe comme ça waaye yow Ben? tu peux me dire de quel droit tu es en train de punir mes filles comme ça di nga xam di nga xam léegi mi ngi nii xale Richard xale am fit wow bët te waddal seeni ay tuñ

yërëmu en seen rey gis ngeen ko mi ngi nii divorcé ba war asu ngeen ne da ngeen koy rey jeexal ko mu fi ngeen may eh tey leen seen nopp yi xoolal kër gi fii nii ñetti naante mun fi am ah. benn fi am ngeen topp seen ndey seen bàyyi ci yembar jàppale seen nopp ngeen di wow ba dem fi di doogoo leen natt tëddoo leen ko fi teggi de mën a ba fajar ni seen gàttaay ngeen mel ay darkase wow c'est pas mal. Bon appétit. Un peu plus sérieux maintenant. lu xew Tahirou laa man mu pas mel ni à vouloir te pardonner sachant que tu le mérites pas. Tu n'as pas de chance rek yow ça te coûte quoi d'essayer non tu vas te dire yow tu yàq sama life yaa ta sama sëy alors que non sama vie de couple bu mu bref viens là je te montre quelque chose de plus important ni la ni et que tu veux changer de volet et devenir architecte <laughs> c'est un domaine qui est vraiment très passionnant mais non loolu ci voilà. notre future maison là. nga ñëw équipé ko sommes takk la nga Regarde, il y a tout. Là, c'est la chambre des enfants, tu as la cuisine par là. Et par ici, on a notre grande chambre. Attends, tu es sérieux là J'ai jamais été aussi sérieux. C'est bien. Parce que tu penses qu'ayant acheté une maison, tu vas me récupérer. C'est mal me connaître très cher. Ça, c'est un projet de vie que j'ai. Tu es là, tu veux grandir. bon il va falloir que tu fasses doucement d'ailleurs ce qui est arrivé est encore tout frais Je ne je sais pas encore où j'en suis et mais je ne suis pas une remplaçante encore moins pour Dalanda Je cherche déjà à remplacer qui que ce soit. Je te laisse le temps qu'il faut pour réfléchir. Je ne te mets pas la pression. Prends le temps qu'il te faut. Je ne veux que ton bonheur, Danica. Crois-moi, j'ai eu des jours plus calmes. Je me rends compte aujourd'hui que les enfants espèrent toujours être avec les deux parents. Et qu'ils ne pensent pas que ça peut être autrement. Elles se rebellent Antia. Et elles n'ont que 12 ans. Je les comprends aussi. À leur âge, nous traverser mais lit. Maintenant, kon xale yi dañ la sonal non sonal tout na sax elle passe par tous les états chantage colère rewantu pleurs Té instant bi vidéo ak jël sama xaalis la j'arrive plus à dormir chaque jour ak buñ may may et je sens vraiment que je vais craquer. daa gis nga divorce fi mu la andi te doo siitaat ci xale yi nga dellu ginnaaw fi gis nañ fi lu nekk de nit saaga na goroom xëy toogaat ci sëy bi te yow ak Tahirou na ngeen yàgg tey mën nga avancer sans moom d'accord mais fi ngeen jaar yëpp mënoo koo fàtte moom aussi donc xoolaatal rekk. man yow waxal mais mon Antia ma conviction intime c'est que je ne peux pas accepter et rester juste parce que c'est comme ça. Tu parles comme si je ne te connaissais pas. Mais rester dans cette situation pour moi, ce serait pire que la mort li la dal nii yëpp mérité woo moi je, supporte pas de te voir comme ça mais comme que c'est ce que tu décides man lenn rek laa la mën a wax sa déprime bi ma la fekkee nii xale yi buñ ko mës a gis ci yow ndax yow yaay seen wéeruwaay defaraatal sa bopp am naa lu ma metti nag te gis nga gel bi lii su ko femme. rek na dem nan la jigéen mën moromam. mais elle n'y est pour rien. tu parles wax ma tu sais je suis allée la voir. la dernière fois. c'était un concours de circonstances. loo fa def. dara defuma fa dara. mais tu te rends compte en fait que c'est très compliqué de tomber amoureuse de la mauvaise personne. <laughs> Au fond, c'est une victime. Je ne m'en veux pas du tout. Si tu le dis. Ça va Il t'a appelé mm, Non. <laughs> demain à il n'est pas vraiment intéressé. Pourquoi ça ah dara ça fait plus d'une semaine. Ne te décourage pas. Il doit juste être très occupé, c'est tout. Ah, sûrement. Mais au fait, pourquoi même tu attends Appelle-le. L'appeler. Bon, ok, je te connais. Envoie-lui au moins un message. Peut-être. Mais s'il te plaît, les la si

Mare, bi ñuy ànd ba tey musuma laa woo musuma laa wax tamit ay waxi fayda dafa fekk ne rek ni mu demee maa ne ci seen diggante lenn rek laa lay demandé nga toog déglu ko j'insiste pas à ce que tu lui parles. xaw ma lenn lu ma ko wax. waa nga déglu ko loolu rek laa la ñaan sarax ma rek nga nga ko jaru ko fi ba ngeen ci yegg ay plainte ki wax yoon mën na rafet sarax ma rek ngir nga ko c'est tout ce que je te demande. Votre série revient après la page pub. mayonnaise chef qualité sécurité hygiène chef Laza, la Sénégalaise de l'automobile, votre concessionnaire représentant de grandes marques au Sénégal depuis 40 ans. Autorent, la référence qualité dans la location de voitures au Sénégal doxantul ndànk ba diwaan décor boo demee fekk fa collection chambre à coucher royale bu yanj Events K1 la ñu wax képp ku bëgg Events K1 dema ci suñu boutique yi ak suñu distributeur agréé bu marque Events Live Cuisine, la cuisine autrement. Donnez une nouvelle vie à votre intérieur. boo sonnee ci di ma filtre ak bañ ma gis di nga def lu bëgg. Siaka yow nag yaa mën a toog du nga ne bëgg loo xam dara ci mbir mi ok amul problème noppal naa la léegi lan rek nga bëgg. ma ko wax te changé wu ci lenn gis nga yow li nga nekkee mooy irresponsabilité bëgg a forcer góor doom bu mbugul yaa ko bëgg a forcer sa bopp Siaka fii nit juddoo na fi nu nekk ñi si seen kayit dudd am à place du père x bëri nañu te wàññiwul dara ci seen biir boo jënd couche ak laaj mën nga dem eh. doo ko déggee ci man xale bi du juddu laa la wax bëgguma ko tey suba et puis du ma moom a sama àdduna la comme nak da nga woowle dara dinaa la ko xamal kenn du décider dara ci sama life choix bu mun di am man maa koy def léegi benn bi ba mooy dégage de ma vie fin de l'histoire lii duma la ko répéter sax cent fois tu vas avorter un point c'est tout bàyyi di ma harceler di ma message di ma woo fàtte yow lan la mais merde quoi à la fin da ngaa diis te yenn woo koñ bi fi la est-ce que juum waa ba la ay de li may Fatou lay rappeler décidément yeen dal yematu len ci duñu yakal léegi da ngeen ñuy top ay way Fili bul jox sa bop importance bo amul yow ngay dox sa soxla may dox sama boss lan la lay topé am sa ma yëgaloo lu tuuti est-ce que xam nga né wa Sénégal yépp sen wayé di lañuy waxtané dëgëntal dëggantaan hmm. <laughs> dañoo baax rek te mëna wax ndax biñ len taxalé wuju ngeen dof fi la len fekkon dañoo waxon bi ngeen di publier ay photo jambour ñing fi won dëkk bi nag te xamuñu ko tooñ ku fayu la ñu xam. ah yéen bi ngeen di dikk di dugg suñu biir kër di fa jaxase loolu kenn waxu ko wax ma leneen waaye am sax. waaw ci delloo si xel boobu nag ci laay ñëw ba ngeen mënee delloo si xel ngeen waroon a mën a def seen teraanga yu doy jël seen xew mi def ko mu wéet fu ne ngeen tapp fa manque doo ay tubaab naan ko bébé jaañ xaw ma ma ko dog ma ko de yéen daal yebaate ngeen li ngeen takkee manque boo leen ko dolli woon ci seen valise yooyu di teral seen goro ba teralaale ci ñun seen ex wujju xanaa yow de da ngaa sunu xew mi nga xamante ne am classe la def ñëpp di ko coow. xanaa li ngeen ko amul a tax waaye am saa dafa am lu tuuti lu ngeen fàtte yéen kat balaa ngeen di dugg ci sëy bi miin ngeen suñu biir néeg ba pare. waaw waaw waaw waaw waaw loolu yàgg nañ koo dégg yàgg ngeen ñu ko wax du problème ñu ñoo leen di déranger te loolu day woy du jeex waaye nag euh, miin kaw lal ak miir miin biir néeg ak buntu néeg sax du wax ji xam nga lan mooy wax ji fi ñu toll nii. maa yëg nga ni sa doom day mi ngi wër di baalu nga ni. la mu fa jooy démb de dama tiit. gis nga am saa dama lay yëgal lu tuuti sama diggante man ak Lalla melul ni yow ak Mariam. juum nga ndax ñun nii la ñu def lu mu def dama koy yëg laata may def da koy yëg. ko rek xam naa li ma la wax ndax la mu fa jooy démb ñun daal paan lañ teg paan bi fees ñu puus teg si woo muy jooy rek di baalu ak baalaguñ ko rek ñoo ngi xool ba xam woo ko dina la wax. mu naan woo kii est-ce xam na lu muy wax. non gaw ma laa la def ma loolu xam naa day sos rek kanamu seytaane la yor nag. Lalla je t'en Jali maa ngi lay sant bu baax di la gërëm ci daje bi tey ni ko organisé. tey ngaa baral wax ji gaaw jot de. Marème Marème ñëw naa sa kër. waxtaan ak yow baalu la ba sonn nanguwoo ma tontu. léegi nag lan nga bëggoon taggal la say maam sant la gërëm la ci yàq bi nga yàq sama àdduna. Marem, foofu yëpp duñ fa àgg gis nga diggante biñ la fi doxaanee ba takk la ba fase la fàtte waaw jali ka même tuuti rek ndax kii baax nañu koy fàttali te boobu ba léegi nag Marème bàyyeekoo ndax barki démb rek lañ fi ngénteem bébé ma kodd nga ñëw ne ko tasal Marème yow est-ce que di nga toog benn instant rek nga xalaataat li nga def ci lu bon lépp laa la Piem jaay tas nga sama kër nangu sama jëkkër defal ma nag sama biir kër mettitu xol ak mettitu biir kër te nag fas yéene woo bàyyi ba tey ah. moonte de bu ma ci doon jàng leçon sax def nga lu ko yàq ndax gis nga man li ma def yëpp assume naa ko erreur yooyu noonu ñoo tax ma doon ki ma doon tey beneen nit la àdduna nag yay na ma. Marème man mi it de saa yu ma xëyee maa ngi rëccu li ma def. rëccu day fekk jëf ca wees.

lii am am na ba pare dafa bëgg rek ngeen rafetal diggante bi loolu rekk la. ma ne lenn laa bëgg mu génn ci gémminam bu dee foto yeeg vidéo yi yow yaa ko génnee bu wala déet Jalika ngi nii nag toog man yoruma portable pour enregistrer la bu dee wóolu nga ko rekk wax ñu dëgg bi. man la. la waaw fili moo demoon ci Ahmed mu jox ko vidéo yi ak photo yi après bi mu ko indee ñu dugal ko te sax man jour boobu noonu ci la ma gynéco bi ne dama ëmb dangaa yàqamti rek waaye man bés boobu noonu laay xam ne mënumaa am doom naqar boobu noonu rek mënoon na maa rey waaye nag li nga yokk yàqul dara ndax laal la yow ñàkk a tàng soos bu ñëw nga ànd ak moom. Marème lii am am na ba pare dama lay ñaan rek waxu plainte boobu s'il te plaît teg ko ci suuf. gis nga fii lu fi mënta ñaaw dañuy fexe rek ñu rafetal ko. lu am ba des mooy yaak laal mii maa nekk seen diggante te mënuma seetaan loolu di am jaru ko wax nga léegi ne bés boobu ci nga yëg ne mënoo am doom moom mii mu yëg ne ëmb na doom man mi ci lañ ma diagnostiquer li changer sama vie yombul metti na lool waaye lii yëpp ay misaalu yàlla la àddina amul benn solo et tu es plus grande que ça. wallahi lan la yow hypocrite nga. je ne te permets pas de. ma ne aaw bu hypocrite nga. gis nga yéen. seen groupe lu ñu leen waxal rek dafa fekk mu nekk ci yéen. tey eh, xoolal jëli man damay dem de. Eh, may ma patt bi def li nga def. Ah, aawooy nag quatre vingt dix pour cent yëpp ay hypocrite ngeen. yow man nga bëgg a jàppee sa dof ma teg dil nga foog ne li ngay def lii nii yëpp man dama la ko teral gis nga li ngay bañ mooy Cheikh yëg li nga def fi la ajoon nga ne mbàpp daanu ci suuf. sese sëy yàqu fi ne Cheikh baña yek li jaral na la lu nek me nak man meluma ni yow li nga bëggoon nak am nga ko aaw buuru këram You know I'm the best Watch it, Jonathan. 내가 된걸 중성의 약화태 된걸 집을래 from 내 담아페 From on the beat don't come Mustafa Nigga I'm the best you better crisscross You must muscle watch you manly crisscross You can bring your girl she gonna crisscross Nigga I'm the best you better crisscross Till I tuck it nigga mala bomba Mala AK-47 nigga do my rumble Ayy Ia ko sul my ko suli boy Damatul danga tele boy Frog on nanny, ADF overturning Moi je n'ai jamais fini, à fini là il eh. m'a aïe hey. maa ngi ci tali bi du ma ki la jox xali i gëj ma gis amee année bi day, i ma dee année bi you know I'm the best wax ci jeex na tey nee nga danga juum sob nga yaa the tey dem from jubile foog ne dama fay flam on a big dog comme Nigga, I'm the best, you better crisscross mon muscle, watch you melly crisscross You can bring your girl, she got J'adore, j'adore, J'adore ce son, ce son, c'est de la bombe Mais t'as trop de talent, c'est pas possible Franchement... Le son te déchire ah, J'adore Merci beaucoup. En tout cas, je ne pourrais jamais te remercier franchement parce que revenir cette décision nek na lo xamné je sais et euh, il fallait que mon douce studio pour vraiment beau déguer motiver quoi en tout cas merci beaucoup. t'inquiète pas on met tout ça derrière nous ok c'est du passé maintenant on se concentre sur le travail on a beaucoup de choses à faire et de belles choses en perspective ouais t'inquiète pas. excuse-moi allô. lii moom il faut nga ñamalaat ma ko I love it. waaw Racky ban baatu jigéen Racky Delia laa nekkal dañ nekk di job nii waaw oho bu buñ gisante nañ ci wax ok s'il te plaît Racky defuma dara defuma dara Racky Bah non. dinañ ci après maa coupé maa coupé coupé qui Delia dama bëggoon ñu waxtaan tuuti. qu'est-ce qui se passe. Nakal, lañ nous convaincre jigéen bu pour fuir..? comment ça. Raki, je ne la comprends plus. Elle a trop changé su ma génnee su c'est des foo nekkoon ko nekkaloon xool samay SMS xeeñu sama parfum elle était pas comme ça et là je comprendre ma dara ci li nekk di xew nii. je sais pas quoi te dire mais euh, tu sais au fond j'ai vraiment pitié d'elle parce que ça doit être insupportable en tant que femme, de se sentir trompée ou euh, remplacée, tu comprends Et je pense que c'est un traumatisme qui doit lui venir de très très loin. À mon avis, ça doit lui venir depuis le fin fond de son enfance. Parce qu'il y a vraiment un problème en fait. C'est pas un comportement normal en tant que tel. Tu sais, moi le truc c'est quoi C'est que ça feeling ça da quoi wàññi elle me met trop la pression et leur baaxul baaxul sorti ci yek. yëg da koy ray ba mu dee firange bu bari baaxul et mom vraiment fini tolu ni elle elle en abuse en fait mu ngi koy yob ci niveau bo xamné ne man comprendre ma et là franchement c'est c'est très chaud quoi. effectivement je comprends mieux la situation je comprends tout à fait ce que tu vis ok euh, le conseil que je peux te donner c'est qu'il faut vraiment que tu la rassures. Tu dois la rassurer. Une femme, ça doit se sentir rassurée, en fait. Tu dois lui dire qu'il n'y a que elle dans ta vie, que tu ne désires qu'elle, tu ne veux qu'elle auprès de toi, qu'il n'y a personne d'autre, en fait. C'est le seul moyen de la rassurer. Et c'est ce dont les femmes ont besoin. C'est de se sentir rassurée, protégée. parce que tu sais il y a un mot qui vient toujours trompé trompé trompé trompé dohan dohan dohan limite fay dem ba moom da fay fess sama buabi. bi suma ma gisee appel am sax damay tit parce que am like suma ko jëlee dinañ xulo ci ay jalousie lu ne ma ngoy def nak ta ba léegi limay may dégg rek lay dégg dohan bu jeex jàmm nak ma ngoy bëgg ñak te la bëgg te tuul dina ko dem uti fenen

Franchement, Salif, moi, quand tu me parles de la DG, je me dis qu'elle sera vraiment à la hauteur. <laughs> Rassure-toi, elle le sera. Mais dis-toi que j'ai eu beaucoup de mal à la convaincre. Ah oui <laughs> Oui. Effectivement. Mais bon, tu me connais. Je sais me montrer persuasif. En tout cas, c'est une bosseuse et je lui fais confiance à 100%. Si tu le dis. Ah, d'ailleurs, elle vient d'arriver. Je pense qu'elle va nous rejoindre d'une minute à l'autre. Voilà. On est prêt. Super. fragile and I'm strong. The magic in your life, a sunshine, a stone. Yeah. I get the best of me if you do the same. There's no complication. Regalo madara fit light in me. Dunyo majengo ko no no au oh mashwa. Itachi life up my lane could take. Ma wadi dao, di dao dao. Munu ma khaliya. Euh, sinon, cher, je tenais à vous préciser à tous une dernière petite chose. Elle sera supposée me représenter ici à Dakar. Hmm. Donc je tiens vraiment à ce que vous la considériez comme si c'était moi. Compte sur moi, Salif. Mon équipe et moi, nous allons l'accueillir comme il se doit. J'y compte bien. Merci, cher. présente Madame Maremdia, directrice générale du projet Aquanique. wetti gis bokk ci mayonnaise chef Aïda rek ci goût qualité sécurité ak hygiène amul dendandoo ci mim réew yaay chef Sénégindia, numéro 1 de l'immobilier au Sénégal. Seni, by Sénégindia pour l'autosuffisance alimentaire au Sénégal.